تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngir ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ngir mën a xam mbooleem loo xam ne rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala يا أحمد الشيخ اغدر لنا بهذا المعذر في بنارة تأتي لنا بسرعة مع بعض سلام الله تنزل لك أنا سرا وروحا في محبتكم تغيبوا وجسما لا يفارقكم دواما وقلبا من محبتكم يذوب ربي بتها وابي هريره يسر لنا من كل علم خيرا ونور الفؤاد واجعل سير في الله حتى لا نهي بغيره بك الاسلام بك ايمان بك احسان نيجي جوه نيب واتشواي واتي واي دي نيب waaye di jiital si nuyoo bi si julli ñu nga xam ne dëgg-dëgg nekk suñu mbokk nekk foofu si Palestine nga xam ne lu may wax le temps rek war nañ di leen ñaanal yàlla képp ki julli rek sotti boo mën a def wala julli boo mën a def wala wérde boo mën a def wala ñaan boo mën a def rek waajib la nga xasal suñ mbokk julli yooyu nga xam ne ñu ngi si Palestine ñaan leen yàlla yàlla dafa leen tawfiq taysir nga xam ne yéen sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ne sa mbokkam jullit bu nekkee si naqar nanka naqarlu te itam di ko dimbale di ko ñaanal yéen sallallahu alayhi wa wax ne maanaam man euh, képp koo xam ne sa mbiri jullit moo ne sooy sonn kooku man nañoo wax ne bokkoo si ñooñ man lam yaxtamu bi di muslimin fa laysa minhum yaa ngi dégg kon moo tax suñ mbokk yu nekk Falastin ñu ngi leen ñaana yàlla yàlla dafa leen fatul xarib dimbale leen si noon noonu ba bon yi nga xam ne ñu ngi leen song dëgg dëgg suñ émission nag nga xam ñu ngi ko tuddé yor yor diiné and ci télé bi nga xam muy Farokh TV nga xam ne dëgg dëgg télé bu ñëw xam la muy télé bo xam l'islam mo leen ñor diiné mo leen ñor dëgg dëgg ñu leen lu baax si ajum gu tedd gi nga xam neñ si bëre bi nga xam ñu ngi def tourner émission diiné waaye nak ci lolu damay wax ne dëgg dëgg émission yi nak gëj am waaye nuñ ko xamé rek mooy xew-xew yi fi amoon ci yooyu rek moo tax ndiki gàmbo yooyu noonu waaye incha allahu dinañ ko commencé waa tey te ne dafa am benn tomb bu may laal rek ñu barkelu su ndax lu may wax tout le temps rek alquran daf ñoo jàngal baligu anni wala aaya yéen sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla waxoon ne ko jotalal donte benn aaya sax kon moo tax dafa am benn tomb boo xam ne dañ ci laal rek nga xam ne tomb boo xam ne dëgg-dëgg ñu bëri dañ ñu koy laaj muy dëgg-dëgg luy imaan ndaxte dañoo gis ne jamono société bi yàqu na yàq goo xam ne damay wax ne pas-pas yi rek moo des wala imaan moo des si nit ñi imaan nag daf di loo xam ne yéen sallallahu alayhi wa sallama leen rek la waxoon ne say un lidi wuqri fil qalbi kon imaan mooy loo xam ne si xol lay ne tout le temps damay wax ne da gis koo xam ne moo la dàq julli gis koo xam ne moo la dàq or gis koo xam ne moo la dàq saraxe waaye gis koo xam ne moo la dàq joxe asaka waaye gis koo xam ne moo la dàq def lu baax waaye dëgg-dëgg boo visité xolol dëgg da ngay xam ne imaanam des na kon da gis ne imaan googu loolu rek mooy loo mooy loo xam ne moo mën a suufe jàmm bi ba nga xam ne xolam mi a sell ba yenn ñaawte fi di ko mën a def imaan xaqiiqa na nit ki am ko dëgg-dëgg lu jafel ci jàmm bi moo tax borom xam-xam yi da ngay gis ne imaan dañ koo xaaj xaaj yu bëri ndax al imaan bi ruubiyya tabaaraka wa taala am na mooy da gëm yàlla ak imaan bi bi ilaahiyati yaa ngi dégg imaan bi asmaa illaahi mooy nga gëm turu yàlla yi tamit loolu xaaj la si imaan waa imaan bil malaaykati moom it xaaj si imaan yaa ngi dégg al imaan tamit bil quraanil karim muy téere yàlla bu tedd bi nga xam ne yàlla dëgg-dëgg lu wàcce si téere bay na waaye dafa nekk jaam bi waa ji mu gëm ñeenti téere yi nga xam ne muy tawret ak injil ak zabor ak alquran yaa ngi dégg iman bi rasuli alayhi salaam mooy nga gëm yaa ngi dégg mboolem yenent yi ak iman bi risalati muhammad salallahu alayhi wa sallama iman bu moo xam ne yéen salallahu alayhi wa moom la indi muy alquran nga xam ne indi dara lu alquran la indi yaa ngi dégg al bi yowmal axirati jaam bi tamit day gëm bés penc yaa ngi dégg azabul qabri tamit imaani azabul am na waaye tamit imaan bi qadaa yaa ngi dégg wal qadri loolu dafa am kon ñu xam ne imaan bay na ay xaaj loolu waaye nag jaam bi nan lay def ba matal xaaj yi yëpp ci imaan kon dëgg-dëgg damay wax na jaam ñi imaan rek lañ manqué looloo waral nga gis ñaawteef yeeg ak yu yu suufee yeeg yu xeebu yëpp du dara lu dul seen pas-pas rek moo desee dëggu si lislaam waaye lislaam la yéen sallallahu alayhi wa bañ ko laayee lan mooy lislaam leen na la waxoon an tuminu billahi wa malaikatu kutubihi wa rasulihi wa yowm al axiri wa tuminu bil malaikati wa kutubihi wa yowm al axiri bil qadrihi xayrihi wa sarrihi yaa ngi léegi yéen sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee al nga xam na xadis ba nga ñoo xam nañ ko jibril ñoo ne li yéen sallallahu alayhi wa sallam la mooy liimaan yénenti wax ko lii lislaam mu ne ko lii imaan yénenti wax ko lii imaan yénenti ko lan mooy ixsaan moo ko lii ixsaan waaye si imaan googu laa bëgg a wax yénent bi leen rek la waxoon jibril fekk saxaaba yaa ngi toog ba xadis ba jeex yaa ngi dégg mun ko imaan an tuminu billaahi mooy da ngay gëm yàlla gëm yàlla na daa bëri ay xaaj am na koo xam ne gëm na yàlla waaye si lan la gëmee yàlla mooy gëm na yàlla si dogal yu yu neex yi kon kooku imaan na matut am na koo xam ne bu dogal yi neexee rek lay gëm na yàlla am na gëm na yàlla waaye bu dogal yi naqadee rek mu yëdd yàlla kooku mooy koo xam ne gëm na yàlla si lan si jamaal waaye gëmul yàlla ci jalaal kon kooku dëgg-dëgg sa imaan matagut am na koo xam ne gëm na yàlla ci lan maanaam ci aqwaal waaye gëmul yàlla ci afaal koo xam ne boo waaraatee rek ñu ne kii ñu ne kii comme Seydina Omar wala kii comme nangam te tey bu jëf jotee rek moo gën a suufe yaa ngi dégg am na koo xam ne tamit gëm na yàlla ci jëf waaye dëgg-dëgg fekk imaan xaqiqatan newul ci xol bi mooy xisa bu ma nettal ne dëgg-dëgg nga gis ne ñenn si saxaaba yi jamono bu ñu nekkee Madina Munawara xam ngeen sallallahu alayhi wa sallam hijri na dem Madina Munawara nekk saxaaba yi nafeq yi bari fa lool nga xam ne l'islam commencé na am doole ñu si bëri ñu daan ñëw si jumaa ji di julli wax nañ yéen sallallahu alayhi wa sallam ne ko jaayante nañ ak yow fekk dara wala ko lu dul ragal nañ te l'islam am na doole boo góorgóorluwul rek dañ lay rey bu ñëwee si jumaa ji daan julli dañ daan jël seen aznaam yi mooy seen yàlla yi ndaw yi mooy seen tabax yooyu di ko bokk seen paqadaan yi ba buñ ñëwee sax dañuy ñëw rek taxaw ne nii rek defaat nii mujj gi nag ñenn si saxaaba yi seetlu loolu wax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo tax te waxoon ne nga gis ne borom xam-xam itam uute nañ foo ñu ne ndax yëkkati ay loxo bam egg ci say ñaari nopp ndax loolu farata la ndax man mandub la wala sunna la waaye xalaa kulli xaalin way keba leen la waxoon rek rafa mandub wa qiila sunna waaye wa asluhu ana nabiyya yaa ngi dégg li tasqutu asnaami min ibaati man kaana bi nifaaqi sartibaati nga xam ne ñooñoo xam ne ay asnaam lañ naan jaamu bu ñëkkatee seen ñaari loxo rek ba si kaw rek nga gis ne seen asnaam yi ñu bokkoon seen boxtaan ñu ngi wadd te ñooñu mooy gëm nañ yàlla si lan si aqwaal waaye si afaal dëgg-dëgg du dëgg mooy gëm nañ yàlla bañ ñu rey leen moo tax dañuy taxaw wax ne gëm nañ yàlla fekk dëgg-dëgg bu jëf jotee rek ñooñu lu ñuy jëf si suuf bokkut ak lu ñuy feeñal imaan daf bëri ay xaaj ba léegi moo tax ma ne la nit ki dana gëm yàlla wala nit koo xam ne dana gëm tawreet waaye gëmul injil am koo xam ne gëm na zabur waaye gëmul alxuraan kon kooku dëgg-dëgg imaan na matut kon imaan mooy da ngay gëm ne ah téere yëpp téere yàlla la waaye gëm ne tamit alquran mooy téere bu nga xam ne mooy téere mujj te moo gën téere yu jiite woon yëpp yaa ngi dégg gëm na tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy xaatimi nabiyin waaye tamit waaye waaye tamit doo weddi nag yenentu ay da gëm ne yonent yëpp ay yonentu yàlla leen yaa ngi dégg gëm tamit azaabul xabri gis gisuñ ko waaye nag dafa bokk ci imaan jaam bi nga gëm loo xam ne mooy bil qadaa mooy ci dogal yi ndax yàlla moom moo waxoon ne mbugal dana am bés penc mbugal a bàmmeel dana am yaa ngi dégg kon dafa war si jullit bi jaam mooy mu gëm ko yaa ngi dégg gëm tamit bi asmaa illaahi mooy turu yàlla yi nga xam ne dëgg-dëgg yàlla ku bëri ay melo la ku bëri ay feeñuwaay la lu ma bëgg a wax mooy xadis boobu nga xam ne yéen sallallahu alayhi wa sallam bu ko jibril di laaj laaj na ko foofu islam yonentu leeral ko mu laaj ko iman yonentu leeral ko mu laaj ko ihsaan yonentu leeral ko kon boo gisee lu tax tey man laal tomb imaan mooy dëgg-dëgg société bi dafa jaxasoo jaxasoo goo xam ne lenn rek moo ñu la mooy nañ bàyyiwaat xel dëgg-dëgg xam ne jullit bi lenn rek la am mooy pas-pasam pas-pas nag lenn rek moo koy dëgëral du loo xam ne looy làmb daj ko la du looy xool gis ko la du looy yëg sax ba yëg na li mooy pas kon pas-pas lenn la loo xam ne say un lati uqida fi xal bi mooy loo xam si xol lay ne ndax yéen sallallahu alayhi wa dara wax ne iman dëgg-dëgg mooy fii hauna hauna wa taqwa hauna wa taqwa hauna di lal dënn bi nga xam ne imaan googu bu nekkee ci nit ki rek jaami day ragal yàlla ragal yàlla gi nag nan la koy defee mooy dana ragal yàlla si mbindeefam yi waaye ragal yàlla ci feeñuwaay yëpp nga xam ne yàlla waxoon ci alquran ne bind laa lu ngeen xam ne xamu leen ko ragal yàlla nag lenn taqwa leen la rek huwa imtisaalil amri wajtinaabi nawaahi fi zaahiri wala baatini min haysu yarda laa min haysu tarda yaa ngi dégg waa ji ne li anna taqwa huwa ngi dégg laana taqwaahu wa miftaal abdi dunyawiyan wa uxrawiyan jaam bi bu fekkee ne ragal yàlla nekk na si moom moo nekk caabi joo xam ne mooy nekk texem fii si àddina waaye moo nekk texeem si àllaaxira kon kon laana taqwaahu rek loolu matal na lépp mooy da nga yàlla si léppam wëccinaa bi nawaahi mooy da ngay teet lépp lu yàlla bañ mooy di iñaanee nit di ko bañ yaa ngi dégg di ko suufeel di réeréylu yooyu yëpp yàlla da koy bañ yaa ngi dégg fi zahir wa batin min haysu yarda la min haysu tarda maqaam boo na bu ko fa bu fa jàmbi àggee mooy mooy xay haysu yarda kooku dëgg-dëgg mooy dëgg-dëgg imaan boo xam ne moom lañ soxla si nit kon tey buñ gisee lu tax ma insisté mooy jaam nañ bàyyi war xel xam ne pas-pas yi nañ ko gën a defaraat gën a xam ne julli ñëpp ay mbokk leen innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna aqwaykum yaa ngi dégg kon loolu ñu nga xam ne ñu ngi koy jàng si alxuraan nañ fexe jëfee ko jëfee ko si nan mooy danga romb sa moromu jullit ne sa ju sa mbokk la jox ko loxo bu la wanee gannaaw nga jëw ko wala nga jox ko loxo bu la wanee gannaaw nga wax lu ñaaw dëgg-dëgg kooku imaan des na si yow imaan daal mooy loo xam ne na nga gëm ne an yàkkula la xam ak yi maytan fa karitumu ni ko alxuraan kenn ku ne yow leer na la yow doo tiim sa morom di ko lekk kon dëgg-dëgg genre jëwante yooyu wala genre xeebante yi wala genre bañante yooyu yëpp dara indiw ko lu dul xool bëtëb keñaan jëm ci keneen wala xool bëtëb waaye ñëpp buñ xoolee ne kii min def li li man kii jaam li man ñoo bokk pas-pas ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk même bu ngeen bokku diine sax mais amal looy xool si moom xam ne xool na jaamu yàlla la kon maqaama boobu dëgg-dëgg julli ñëpp ñu fa nekkee wala jaam ñëpp buñ fa nekkee rek société bi dana baax réew mi dana defaru waaye xalaa kulli xaalin nañ xam ne daal pas-pas rek mooy jëriñ jaam bi waaye pas-pas boobu nañ fexe muy imaan mooy imaan bu baax imaan bu sell xol bu sell xol bu laab xol bu moo xam ne moom la yàlla bëgg mm, xam xol bu xam ne moom la yéentu sallallahu alayhi wa ba lislaam boobu ñëwee dara indiwuj ko fa lu dul fexe xol yi rafet xol yi sell kon tomb boobu lañ indi woon am luñ si leeral rek waaye dëgg-dëgg damay wax ne incha allahu nañ gën a topp Farokh TV nga xam ne chaque vendredi incha allah heure bii nii euh, émission yi dana continuer tey dafa fekk ne temps bee ñu xoj rek moo tax ñu doon leeral tomb boobu ñuy wax imaan ndax dëgg-dëgg dañoo wax nañu gis neen jamono ñoom jaxasooye lu waral loolu mais leen dara xol yaa desee sell rek xol yaa desee làpp xol yaa desee yaatu waaye bu yaat xol yi bu yaatoo rek dëgg-dëgg imaan am na foofu xol yi bu sel bu seddee rek imaan am na foofu xol yi bu sellee imaan am na foofu kon imaan mooy loo xam ne bu fekkee ne nekk na ci xol bi rek cër yi moo koy dëggal ndax yenn sallallahu alayhi wasallam wax ne ne julli dëgg mooy koo xam ne doo yëkkati sa loxo di ci lor di ci leer kenn mooy koo xam ne sa làmmiñ doo ci lor kenn waaye tamit sa loxo doo ci lor kenn kooku imaan moo dem ba tasrufaat si cër yi kon moo tax mbir bu newee si xol rek cër yee koy dëggal ba pare jëf ji dëggal ko kon dëgg-dëgg ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkalaa ñëpp di wax ne tomb bi lañ leen indi leen ñu ngi leen di rendez-vous incha allah vendredi bii di ñëw si heure bi ànd ak Farokh TV wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ngir ngeen di jot nag foo leen toll ci biir mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dina ñu ngir mën a xam mbooleem loo xam ne. ilallahi wahdahu yanaalul maqaamala raja